kon asalaamaaleykum rahmatullah taala wa barakatu maa ngi tàmbale sama kàddu si kaddu nuyoo yoo xam ne suma xol laa ko tibbee ko jaglal suñu mag suñu xarit suñu Ahmed Khalifa Niass di ko wax mu jottali ma nuyoo yooyu njaboot gi yëpp ba ci xalif euh, général Léona Niassène dañ ci Ahmed Tijane Niass di ko waxit mu jottalil ma nuyoo yooyu xalif général bu Medina Baye suñ papa suñ Cheikh Ahmed Tijane moom itam di nuyu sëriñ Arabi Niass ak euh, suñ Cheikh Awa Diagne Niass bi nga xam ne mu ngi fi teew ak sa njaboot gi fi teew yëpp te jigéen Salma Chérif Mohamed Ali Chérif maa ngi lay nuyu di la ziar di jox sa wàccuwaay en que baytu rasul sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Ndaw ak maître euh, Mbay maître Mbay Dieng di nuyu itam Maman Rahma ak euh, sama beneen xarit ma banaan soppe Sëriñ Mbay Sàppo ak suma jigéen Salma Salma Ñaas ak njaboot gi yëpp say doom euh, li waral nag ñëw bi tey ndax tey laay wax ndox kër gi ñëw naa fi ay at yu yàgg-yàgg ci ginnaaw kon duma fi gan waaye tey nag dañu ñëw bokk tiis naaw bu sunu borom dogalee sa rak sa rak euh, Sidi Lamine fi fële si ñoom kon euh, ñëw nañu tey euh, Ahmed jàll kenn ku Sénégal yëpp xam doon sa rak Sidi Lamine euh, xalifaam mu doon it ci diine ak ci wàllu presse un acteur majeur moo tax ma dina dem léegi kër ga fekk fa njaboot gam fa bay jaale leen ci réew mi ci nation bi yëpp waaye itam yow lañ koy jaale ndax yaay mag yaa uuf njaboot gi keroog bi mbir ma xewee ba ma la woowee da nga ne ma maa ngi doog a atterrir je pense Dubaï et que jëlaat euh, avion immédiatement éthiopienne pour dellu si ah ñun nag lépp luñ si def rek suñu wareef la mooy nit ki noo ko war a taxawoo na koy taxaw ngir yàlla yàlla rek tax euh, may feddali Sénégal yëpp suñu diggante lu yàgg la te it xam naa bu baax a baax sa cofeel si man ak sa yéene saa yoo jëlee kàddu wane nga ko wala wax ni man it cofeel googu ak xarito googu moo si fi jóge waaw je suis fier de cette relation waaye ñu ngi lay jaale si di Lamine di ñaan yàlla mu xare ko aljanna ci aljanna ñu gën a kawe ñaan suñu borom it mu teg loxo suñu njaboot gu mu bàyyi si ginnaaw te la fëddalewaat daal suñu taxawaay sa wet wetu famille bi yëpp ci wetu Léona ak ci wetu Medina Baye ci wetu Niassène yëpp lépp loo xam ne war na nekk taxawaayu état incha allah dañu ko def eh, ngir gunge leen ci domaine bi nga xam ne mooy domaine bi suñu borom jagleel. maa ngi santaat di gërëm kaddu yi loolu rek la xam naa du mën a gudd xam daal di la xamal ne bokk tis bi yal na fi géej jërëjëf